rasul lu yàlla mayul boppam mooy ko rasulullahi islaam lu ko may kenn mooy woote ak dëgg ñëpp fekk si waaye li yahlika man halaka an bayna wa yahya man hayya an bayna Cheikh Mouhamadou Mountakha moom képp ku ko xam te jaxasoo moom sax boo séenee jëmm rek da nga xam ci lim la joo xam ne itam jëpp liggéey Sëriñ Tuubaa la itam jëpp jaamu yàlla te loolu dina ci at lu fi jàppale dara Cheikh Mamadou Bachir waa Diop daanaka seere ne mun taxaa dama jaaxal ndax day bëgg dara mu ne mu ne bëgg naa dara li ma bëgg a jafe muy jëmm joo xam ne genn kilifaam bu ma saxam yitte xamut genn kilifaam bu ma saxam xalaatam amut genn kilifaam bu ma saxam bëgg waaye suñu borom nag fay na ko ci bi ndax mboolem kuy jullit wala nga bëgg lu baax rek yàlla def na ba nangu yàlla suñu borom itam defal ko tawfeex juróom mooy jëmm joo xam ne ak farloom ay yitteem ju kaw ak xalaatam bu rafet kenn mënu ko natt waxtu woo ko fekk rek bis ba nga jàpp ne ca la war a boo ko fekkee ci biirum néegam da ngay fekk loolu jikki bi di jàng talal na ko du sax du ko kon kooku dara yàgg na tënk ko la tubaab bi seeraloo Sëriñ Tuubaa rek mais ki gën a dof wala ki gën a xool Sëriñ Tuubaa di ko seeral ne dara ci nguuru àdduna buñ ci xelam waaye moom bii tam ku jombe moom dara wala miinoo ko sax waaye kuy xool doomu aadama rek boo ko seeree da xam fi nekk muy koo xam ne itam nag.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 yoonu murit yoonu jaayante la yoonu bu jëm ci yàlla la yoonu yaakaar ëllëg la waaye du yoonu adduna liñ bëgg nag topp adduna fa adduna toll yoonu topp ko ca loolu yoon wuru ko def liñ war di def mooy na suñ kilifa daa doxe bu yoon bi agsi fii yoon yoon wa kenn wuru ko wàcc mboolem na kilifa daa doxe it Cheikh Mouhamadou Mountakha mënta soppi noonu xam ngeen ne bu fekkonte ne lépp lu Cheikh Maodo Mountakha def wala wax wax ko ci réew mi danañ ko def kon dana mujj mel ne réew mi kenn néew fi pour moom te moom la ñuy def yàlla lañ koy seeral waaye seenu sonn ñu nga xam ko ndax la Sëriñ Tuubaa daa wax rek bu ci bu leen ci sàkku gërëmu ndax riddal naa si rayatul laa tudd kenn mënta fi te ku ci sonnoon ba am ko du la jëriñ dara kon nag da ngeen fexe ba. sonn ci sàkku ngërëmul yàlla muy borom bi def ndax bu leen gërëmee kat nit ñi gërëm leen te ko sañ bañ moom foofu la nekk lim def def ko ngir bëgg ko ko tagg ngir wala bëgg ko wax li muy def lépp te genn wàll ka kat nit ñi genn wàll li muy jëf ko dimbale nit ñi wala muy xalaat muy wax wala jëf yu mu jëf genn asaka ja nit ñi ko kon moom la muy def kam koy seeral mooy yàlla bu ko bind ak Sëñ Tuubaa moo ko def jotaay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 mooy jaayante suñu digg Sëñ Tuubaa te ku ci jaayante moom ku nekk la nga ëpp yaa ko wax ndax yaa ko xool ba mu doy la sa digg sa borom loolu suñu bàq bu sa waxoon nga doy la ko kon lépp lu mu nga ko war a am moom mi fi nekkal Sëñ Tuubaa nag ku ko xam ku ne xam ne bu fekkoon te ne ñëpp dégg nañ ay digalam de wala ay teram mboolem li ñu bëgg ci àdduna ak àllaaxira ko. kon loolu foofu mooy fi nekk la ca des rek li ma doon junj rek yoon wi du ak mouvement du parti politique du association yoonu jëm ci yàlla la yoonu tënk ci digal la yoonu tënk tënk ci kilifteef la te Sëriñ Tuubaa boo ko nekkee sàtt mu di saa yoo xam ne mu njëkk wax ba ma wax ko salabul ixtiyaari li xusni zannihi bi daan tari wa tark al-i'tiraad mutlaqan walaw bi baatin alayhi fi ma xataw li ci des rek nañ xam ne sëñ bi bañ ko topp àdduna doon ko jóg lépp loo xam ne xam nga ne amal na njëriñ nit ñi nag ci lay xëy gont nit ñi duñ ko xam nag lu mu ca war a def dana ko def waaye soxlawul nag parti politique ñooy def lu lu mu def balaa soo ñu communiqué ko wala ñaare ko ñëpp moom la muy def dégg ko ngir nit ñi da koy mi nga xam ne. mooy jël machine bi léegi teg ci loxo foofu la responsabilité toll.